waaw waaw comme ça ni ko waxee rek dig moo dig moo représenté Sénégal dañuy andi drapeau Sénégal wax waa Sénégal yëpp ñëw ñëw jàpp si ñëw voilà ñu ñëw andi victoire um déedéedee sagal supporter yi quoi parce que jaabante bi université ñëw fii di supporter dafa xaw a métti quoi dañ def dara nañ def sénégal ñun dañuy yëngal si kaw ñoom nañ yëngal si suuf mu jeex yëngal si kaw rek ñu yëngal si suuf mu jeex ah, waaw dañ koy yëre jaajëf ok jaajëf waaw lu xaw a ni ku yaru lan la lu xew te dig xam na instant bii mooy loolu dañu waaj a préparé lii bi Euh, bon match bi euh, parce que xam nga étudiant rek euh, bu toogee lu bari comment dire ba heure yii nii day xalaat resto quoi <laughs> comprendre lool moy suñu problème. stressé wa dama stressé wu touti dama stressé wu tout nak mais dina bax incha allah rabbi dina bax amna ci si confiance. lan lan lan lañ wara changer pour meuna pour mën a gagner. non instant bi ni bon ba match bi jall ba pare rek comprendre bu match bi bu jall nak après ñu doog ci wax quoi instant bi ñu ñu garder confiance rek dina bax incha quoi. il faut gars yi tamit la yow oui, ça va. naka mu. yaa ngi oui oui. Euh, ah. lan nga tay euh, sa équipe bi nga bi nga xamé mi Duc. Euh, je suis nous sommes venus ici pour supporter le le Duc nous sommes fiers de venir ici <laughs> merci. Hein. vous n'êtes pas vous sénégalais. oui je suis sénégalais. je suis au foot j'appelle au Fouta quoi. Ah, oui je suis un étudiant en biologie première année ici au Sénégal, euh, à Dakar Oui, c'est mon premier année. Comment vous voyez cette équipe de, de Duc ah, C'est une meilleure équipe. Hein. C'est une meilleure équipe. Pourquoi l'équipe ne gagne pas pour vous hein? Pourquoi l'équipe ne gagne pas ouais, <laughs> Non, ça. Parce qu'aujourd'hui, ils vont gagner Inch'Allah, aujourd'hui, ils vont gagner. Tu vois, ça baax va. fii la rawee sant bu baax. naka affaire yi. waaw ñu ngi si kawam rek waaw quoi étudiant non waa douzième gaynde nag la ñu àndal Sénégal benn benn lépp Sénégal la quoi. Sénégal la moom waaw ñu ñëw. waaw dañ ka ngir mu ñëw jël si ndam si incha allah. yaa bi mu bi compétition commencé yaa ngi ñëw bi ma première fois wala yaa ngi chaque jour moom maa ngi ñëw waaw yi mas daanaka seetaan naa mas yëpp sans dig sax mais yeneen mas yëpp seetaan naa ko moom. mais li ñu fi gën a yokku ñëw mooy dig di koy ñaanal yàlla yàlla defal ka ndam incha allah si kattanam bu baax am nga yaakaar. waaw incha am na ci yaakaar. mooy loolu yàlla. yow naka mu. siyaar de. yaa ngi jàmm. naa baal alhamdulilah. yow yëngatu lu xew. ah man damaa xaw a lii quoi nga ñëw fii moom. da ngay indaale xiif quoi. waaw xiif laa euh, ngi takk sam biir quoi. dama maa seen kilifa moo tax amoo stress stressé wu moo tax ngay xiif. non non non man moom wax dëgg yàlla. stressé du ma si stressé wu quoi. waaw mooy loolu basket moom. naka ñu tey. incha allah incha allah loolu moom tey gëm naa ko bu baax macha allah waaw.